سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وسلم دون التمكين أما بعد وهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن صحيح أشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتديه صلى وسلم عليه الله وآله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والحقائد والأقوال والأفعال ووجه الله تعالى الحقائد وأوصيكم فيه وبعده أنفق بما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع لسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم وأخصى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما تترك الفحشه وقال تبارك وتعالى ومن يحمل مثقال سنة خيرا يره وطوبى لمن أحس ما أتى به رسول عليه بآله وصحبه سلام محدثون وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتهى عليه بآله وصحبه سلام من جالب بانتفاع وأوصيكم أيها الإخوان لبكي من كفاني سبيل الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجري إليكم ألما وكبدا وأنهيكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه صوابا فإنه مما يوجه إلى خيركم الأجر والرضا والصواب وتطلب الكرم بخير التقوى من الكرم هو التقوى ولا تطلب العزة من خير العزيز المعز بجاه حبه نبيه رسوله الآس فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قال إليه كل من ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس وخذوا ربكم اتقوا الله حيث كنتم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يصبح فيه عند مميت ميته wa anna man lam yatub minhu tawbatan nasuha faqad amarahu man waatuhu nasiha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tuj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الكبير رقم الله كثير فضلك alhamdulilahi li si jaxala yowmal xiidi yowma tawxasati wa tafrixi wal itlaaqi wasalaatu wasalaam ala man axrajatna min sulimatil jaxli wa shirki wa nifaaqi wal imlaaq sayidina mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi sawil wafaaqi wa ala man tabiahum bi ihsaani fi jumlatil afaaq ama baxd fa xaasal yowmul وهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك وأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد فيه به فيه من المنتقى عليه سلاماه بجميع مختفي فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وحق بفضل من جاد بفتق رق ومن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يسفر بكل ما, ما من الخير يستفيه تطلب فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى خيركم غيره وتوبى فيه وتوبى وتوبى فيه إليه تبارك وتعالى من جملة الحسيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى خيركم سبي الطغيان والتوجه إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله سبحانه وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه الخسوات المرية صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخفى ولم يكن له شريك في الملك am yakun lahu wali min xulli asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah mbokki jullit ñu ngi leen di nuyu te di leen jégglu di leen baalu àq te di leen baalu àq di ñaan sunu boroom mu boole ñu jéggal ci yërmandeem ju yaatu mu boole ñu dimbali ci màggam ak ci sàllam xam naa dañuy baaxantal rek di wax ne dina dañoo toll ci jamono joo xam ne jamono ju xat la nga xam ne àdduna bi yëpp ah ñu ngi ci ay jafe-jafe waaye nag fekk na alxuraan moom waxoon na lépp kon ñu wax ne ba alxuraan di wax naan auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal juu'i wa naqsin min al-amwaali wal anfusi wa thamaraati wa bashiri saabiriin llaziina izaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun ulaa'ika alayhim salawaatun min rabbihim wa ulaa'ika humul muhtaduun kon suñ boroom moo wàcce lii nga xam ne moo fi am di ay jafe-jafe muy am nattu kon nattu la boo xam ne suñ boroom moo ko wàcce bu kenn kenn la loolu sëñ bi ah wax na ci ay bayit yoo xam ne danañ ci agsi ah suñ borom di wax ne maa leen di nattu ci mbir kon mbir mi tey mayees na ne lii xew mën naa doon leneen tamit ëllëg kon bi ne bu ne dinaa leen natt ci mbir bi say in la xaw la wax kon bu dee bi say in la wax rek mel na lu mu lu mu lëm la moom rek moo ko xam kon mën naa nekk lii tey mën naa nekk leneen ëllëg waaye mu ne mi neen xaw fi ci tiitaange ci njàqare kon yaakaar naa ne fi mu ne nii kenn kenn nattabliwu ne adduna bi yëpp fi ne ñu ngi ci tiitaange ñu ngi ci njàqare kon loolu am na jamono yi wal joox yi kenn ku ne xam na ne tamit kiif jamono yi am na ndax yaakaar naa ne bari na ñoo xam ne ñu ngi tëju ci seen kër lañ daan amootuñ koo am ba am na ñoo xam ne ñu ngi wër ci ay kër wala ci ay barab di leen jox ay ndimbal ngir lu ñu mën a dunde ba ci suñu dëkk bu tedd bi tey jii kenn koy dégg na ci Touba ca kanam la muy def ci ay ndimbal ci ay ay ay kii kon xiif ku xam na ku ne xam am na kon day mel na aaya bi jamono jii rek la la gën a déggoon tey jii war naq seen mel na amwaali kon muy wàllu économique ku ne xam ne nii alal kenn ko nekk na ñu bari nañ ko daan amee ameetuñ ko ni ndax wàññee ko na bu baax baax kon wa naq seen mel am wàll jooju alxuraan wax kon jamono yi toll nañ ci ku ne xam ne nii crise moom ci wàllu am am am na walan fu si mooy ay bakkan ku ne xam ne nii lii dem ci bakkan fi ne bari na lool ku ne xam ne liy dem ci ay bakkan bari na lool fi mu ne nii wa samaraati mooy ay meññet ku ne xam ne nii tamit tey eh, yàlla buñ ca yàlla buñ ca àgg waaye ñu ngi jëm ci nawet nii xamuñu nu muy deme waaye ci tënk rek ci jamono yee Sénégal da ngay dégg ñu naan barab sàngam bàyyi nañ seen soble wala bay nañ seen pomme de terre te mënuñ koo jaay ba ma ngi fay yàqu mhm. kon samaraat bi daal dina génn foofu waaye alxam di wax na ne wa basiri saabiri na waaye nag ñi nga xam ne nag suñu borom wax na ne bu leen tegee natt yooyu yii ñu muñ ko xam ne yàlla rek ko moo leen ko ko teg ñu muñ ko la leen cee tagal mooy mbég mbég rek moo ci moo ci moo ci mujj muy ñaan ñi nga xam ne isa asabat si xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ñi nga xam ne ay jullit dëgg-dëgg lañ te bu leen mbir mu mel noonu dikkalee ci xeeti natt yooyu xeeti jafe-jafe yooyu ñu muñ ko nangu ne suñu borooma suñu borom mbig rek la ak xéwal rek la leen ci tegal waaw ulaa'ika alayhim salawaatun min rabbihim wa ulaa'ika mm-hmm. rek la leen mujj moo ciy mujj waaw kon toll nañ ci jamono jooju kon ku ne xam na nii jafe-jafe yi am na xat-xat yi am na waaye nag lépp ñu doon nopp suñu boroom xam ne lépp yàlla te lépp lépp lu mu teg ci jaam bi ci ay nattu ak i tiis euh, euh, ci jullit xéewal rek lay doon ci moom ndax am bu dee ci koo xam ne du jullit mu bëggal lay doon moom waaye nag ab jullit lépp lu dal ci ay xeeti nattu ak i ak sëñ Tuubaa na fu muy wax naan ak dëkk sax bu jamee ab jullit ak dëkk ba ci dëkk sax bu jamee jullit bi dëgg googee suñu borom am na lu mu koy xaymaa benn mu suppil ko ci ay daraja wala mu ngi ko ci ay ay bàkkaar wala mu yëg ko ci ay daraja loolu lépp doon loo xam ne tamit ah, naka jekk bi fi jullit yi jullit yi ñu jiitu ñi fi jiitu loolu daan am ci ñoom ndax alxuraan day wax naan alif laam miim ahasiba naas an yutrakoo an yaqulu aamannaa wa hum laa yaftanuun wala xat fatanaa la sin mu xablihim fala yaxlamanna llaahu sadaqoo wala yaxlamanna al kaasibiina mu ne ndax ndax ñun dañoo yaakaar ne dañ leen di bàyyi rek ñu ne gëm nañ ñu daal leen bàyyi noonu rek déedéet faaw suñu borom nattu leen nag ba xam fu seen ngëm toll ba xam ñan ñooy dëggal ñan ñoo nekk ci dëgg ak ñoo xam ne nii ñu ci ci safaan ba kon yatamanna la sadaqa wala yatamanna xaasibina ci loolu ci lay xamee suñu ci la suñu borom di xamee nag ñan ñooy dëgg dëgg dëgg jullit yi ak ñan ñooy ñi nga xam ne nii kat jullit gi dañ ko tuddoo waaye doonul dëgg dëgg dëgg moom ndax ku ne xam na ne eh, ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaan di xeex ak saxaaba yi lu masa métti métti métti ak lu métti métti métti daaw ñu dellu ginnaaw ñooñu nag dañoo dëggaloon ñooñu nag dañoo am amal pastis boo xam ne ak ngëm goo xam ne lu wér na ci ñoom moo tax mosuñoo dellu ginnaaw benn yoon kon ab jullit foofu la war a nekk waaye lu man di xew nag faw natt bi moom di am faaw natt bi di am ndax noonu ko alxuraan waxee rek ña leen fi jiitoo da leen tegoon ay fitna yéen ñii tamit faaw ñu teg leen ay fitna ngir ba xam ba mën a xam ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo dëggal ñan ñooy ñi nga xam ne ñooy dëgg dëggi julli ñi ñu waxe naan am xasibtum an tudxulul jannata wala maa yatikum masalan li seen xala moo xam ne ku masatuhumul basa wa daraaw وسلسلوا حتى يقول الرسول وسع الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب mooy da ngeen a jort ne da ngeen dugg àjjana tax la xam ne ñoo leen fi jiitu woon tegoon nañ leen ko ci ay ay ay musiba ak ci balaa métti woon na lool ay jamono ba yont bi sallallahu alayhi wasallam ay saxaabaam sax di wax naan ah xanaa suñu borom dañoo fàtte xañ nañu yàlla yi dimbali kon booba métti woon na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak i ba naan ah xañ na ni yàlla yi dimbali nag xañ na ni dimbali suñu borom bi ñëw mhm. xam ne jamono yooyu métti woon na am na fu ñuy waxee naan xatta isa stay asta rotul wasan no andoona mu xat pusi boo jaa um nasruna li dem ba ñàkk yaakaar dem ba nañ koy waxee ci jamono tey jii mooy dañuy wax décoration mu dem ba toll foo xam ne jàpp na nag kat ah xanaa suñu borom da leen a fàtte xanaa leen suñu borom diggoon xanaa na ma yàlla ba ci wax yi rek da caa dellu ginnaaw ci jamono yooyu nag biñ nekk biñ tolloo ci xat-xat yooyu ci la suñu borom dikkan dimbalam ci jamono sëñ bi eh, am na eh, benn jàngalekat alxuraan boo xam ne eh, ci jamono sëñ Tuubaa dana jàngale alxuraan ba ay ba ba ba ba métti lool mu mujj ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko Mbàkke man day daara laa yor daara alxuraan laa yor di jàngale waaye day danaa bàyyi daara ci dem de ndax de métti na lool jamono yi ci man suñ tubaa daal dina ko xata isa stay sa rusul wasan no andoom xel kusu bu li ci tegu mu ne ko jaa ahum nasul na mu ne ko kon nag dellul mooy lan ba méttee ci jamono yent bi jamono yent bi ba méttee ba métti bañu bañu bañ bañu bañu bañu découragé ci gàttal boobu li ci tegu mu ne ko xanaa suñu borom a dikkan dimbalam jaa ahum nasruna ne ko kon a dellu mu daa delluwaat ne ca njàngalem alxuraan ma ne ca ba suñu borom soppi jamonoom ko sant ne bu du war a yow akat demoon naa ba woon naa ba noppi waaw kon ci moom yàgg lay métti faaw rek lay métti waaye nag lu ci mën a doon lu nekk ñu delloo ko ci yàlla xam ne lépp suñu borom la kon jamono yi métti na xat na ci na fu nekk ci mbool rawatina réew jullit yi waaye nag lépp yàlla suñ borom la waaw loolu Sëriñ Tuubaa wax na ne man sanna xayrallaahi yox nii aw yadur fasaaka fii daari ni soo kaddin wa dur leen képp koo xam ne jort nga ne jort nga képp koo xam ne jort nga ne kenn mooy mooy mooy mooy mooy lore moo kenn képp koo xam ne yaakaar nga ne ku yàlla mooy lore nee na yow moomu dee nar ngaa sonn sa àdduna sa àllaaxira fa saaka fi daare soo kat din waddul ñu ne koo kay ci ñaari kër yi muy àdduna ak àllaaxira ay coono ak i loraange rek la nar a dëkk mu ne adduru wa nafu min arrahmaani laysa min al bidaani wa sudaani nee na loraange ak njariñ ci suñ borom rek la jóge aji yërëmi aji yërëmi bi muy suñ borom mu ne laysa déet ñoom ñaar ñoo ñii muy njariñ ak lor mu ne bii daane di jóge di jóge ci ñu ñu weex ñi wasoo daane ak ci ñu ñuul kon du nit ku weex du nit ku ñuul loraange mënut bàyyi ko ci ñoom njariñ it kasalik ak nafu ak adurru wa nafu minal minal jabbaari laysa minal fujaari wal abraari leen na lor ak njariñ mënut a jóge ci kenn ku dul ak jabbaar muy ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy suñu borom yoo xam moo moo not ñëpp rek mu ne lay saa déet ñoom ñaar ñoo ñi di njariñ ak lor déet muy jóge ci kudul déet muy jóge ci alfujjaar yi muy kàccoor yi wala abraar yi wala ci ñu baax ñi waaw kon lor ak njariñ mënut jóge ci kenn kudul suñu borom mu ne addur ba tey wa naf min al wahaabi laysa min ahdaa yi wal ahbaabi njariñ ak lor mënut a jóge ci kenn kudul al wahaab ki ki nga xam ne mooy mooy maye ñun suñu borom mënut a jóge mukk ci al ahda ci noon yi wala ahbaab bi ci soppe yi kon ba tey la ba tey noonu suñ tubaa nag ne su ma dawaa u jumlatan min huwa rujoo ilaa ilaahina taala bil xusoo nee na nag saafara si saafara si lépp nag ak lépp lu ma a doon rek xuwa mooy ak rujoo delluwaat suñu borom ilaa ilaahina delluwaat ilaa ilaahina suñu borom taala xëy aji bil xusoos ci ragal yàlla ak ci toroxlu ak ci topp ay ndigalam ak mooy ay teram waaw noonu rek mooy li nga xam ne moom lañ jubloon a wax yàlla yàlla defal digal ak topp dégg topp ñoo ngi leen di jégalu bu baax nag tey jégalu mboolem jullit ji wasalaamaaleykum wa rahmatullah